بيزال القلب أجنب بيزال القلب أجنب مقلن سيسال القلب أجنب بيزال القلب أجنب asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu mbokk julli di mbokki taalibe yi su ngeen déggee bàkk boobu xam ni jot nañu ndigal ci cheikh mouhamadul muntaka xalif général des mourides ñu ngi ñaan suñ borom bàyyi ko fi te yàggal ko waaye jëm nag ci rakam ju baax ji di sëriñ cheikh mi nga xam ni tey mooy xalifub sëriñ saliw ndigal loolu nag wàcc ci jëwriñam ju mag ji di sëriñ Ousseynou kan borom xalima gi jàmbaari sëriñ saliw a ah, lan moo xew ngóob mi nga xam ni moom la sëriñ Cheikh daan woote ca Lagan a ah, joxaan na ndigal nag jàmbaram ji di sëñu sëñu kan kañ la fa ñu jëm ca ngóobu Lagan boobee sëriñ bi nag di ci woo ñëpp képp koo xam ni bëgg nga sëriñ saliw sa yitte day sëriñ Saliou ni sëriñ bi daan jógee ni mu daan demee waay waay ne bàyyiwul kenn képp ku wax an laa ilaha illa allah ñu ngi lay woo ci ngóobu sëriñ Saliou bo waaye nag sëriñ bi tànn ay jëwriñ ci daayiraam yi daayira soxna Fat Jaxate Grand Médine a Asana Bodiane ak soxna Fatima Diop daayira Riyadou Salihin sëriñ Moustapha Diop soxna Aji Ami Mbuub daayira Xidmatu Salihin Cité Fadia Bamba Kan Ndonga Sarr daayira Touba Tawféex Gaynjeen Seex Jonn Ousseynou Gueye daayira soxna Fat Jaxate Kayaar soxna Ndey Taal Ousseynou Sey daayira Miftaaxul Xayri Tiwaawan Pël sëñ Abdoulahat Diouf soxna Fat Ñang daayira soxna Fat Jaxate Pikine sëñ Asan Diouf Mamar Ndiaye daayira Kanzul Muhtadin Parcelles Seex Mbakke Gaye soxna Ndey fat Mbub daayira soxna Jaara Kër soxna Aminta Bodian ak Serigne Bamba Sam waaye waaye ñooñu ñëpp ki leen di coordonné nag ah muy Pablo le coordinateur ah numéro baa ngi nii 77 371 48 23 képp koo xam ni bëgg ngaa dem ci tool yooyee wooteel ci numéro bi ngir àndandoog Serigne bi ndax ajjuma ci ngoon la ñuy départ waaye nag ah lépp yem na lépp mat na. ne ñëpp jóg nag ñu àndandoo ak sëriñ bi nag dem lagan waaye nag sëriñ bi mu ngi sant a cant googu nag mu jëlee ko ci sangam ba sëriñ Cheikh ngir lan ah Cheikh Gueye Mbana ak Alaaji Mbay Touré grand transporteur bu mag boobee nga xam ni saa su sëriñ Cheikh jógee joxe ndigal ñoom ñëpp ñu jóg joxe seeni woto a yóbbu ko nag fi nga xam ni foo la war jëm ci ndigalu sëriñ Cheikh loolu nag sëriñ baa ngi leen ci sant ndax bu loolu amul woon. sëriñ Ousseynou kan borom xalima gi jàmbaari sëriñ Saliou dana taxawal ay woto wutali ndigal li sëriñ Cheikh joxe kon nag bis noonu muy ngoobu Xelkom ci ndigalu sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou ma jël kaddu gi nag jox ko kan ah ki jaay ak njuréelam jëndee ko taalibe jeex tàkk ci sëriñ Saliou kooku mooy sëriñ Ousseynou Kane borom xalima gi. jërëjëfati sëriñ Saliou. jërëjëfati jërëjëfati Serigne sëriñ jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne ñu ngi sant ku tedd ki bu wér. di amati mbégte bu baax. ci tawféex ji nga xam ne wàccaat na ci sunu kaw. muy tawféexi liggéeyal sëriñ Touba sëriñ Saliou Mbacké. ndax. laa tafaalu shay'an bi xayri isni fal isnu sartun fi qabooni sha'ni ku tedd ki nee na bu leen def dara te àndut ak ndigal te ndigal kat mooy bu fekkoon yoonu murit daa doon dafa am ay ay bànqaas ay xer mën la ni li ko téye fi ko samp mooy ndigal te ndigal ci la lépp nekk kon nag ki nga xam ni wuutu na sëriñ saaliwu wuutu sëriñ saaliwu wuutu na sëriñ saaliwu wuutu sëriñ saaliwu maanaam wuutu na sëriñ saaliwu ca mission ba wuutu sëriñ Saliou ca jikko ja ak dal ga ak mbaax ga ak yéwén ga ak tedd ga sunu digalee sikk amu ci ni sëriñ Saliou woonu digal tey nag xam naa ni liggéeyal ju baax maa ngi gis benn borom téere mm, mu bind ci téereem euh, aw xas sax la ko tudde ni bokk na ca la ñuy def di tàggat nit ñi ñu leen di liggéeyal maanaam di leen tàggat ñuy liggéeyal gaa yi baax yi bi ma ko gisee ma ne ah téere bi de xam naa bu fekkee am na lenn lu ca nekkul dëgg lii moom dëgg la te dëgg goo xam dañ cee feer la dañ cee dañ cee am mbégte ndax ku la ni dañ laa tàggat ngay liggéeyal waaju baax nag tagg na la taggul xasu la dalaa tagg waaw ndax liggéeyal waaju baax li ci nekk ci ay tawfeex kenn mënu koo misaal te loolu ndimbal la kon nag euh, woote baa ngi noonu suñu dégg ngeen ni ko suñu mudu leerale ñu ngi ñaan suñu borom rek ñu dem ci ak jàmm Euh, te lépp lu ñu fa sàkku sama baroon defal na ko ndax sëriñ Saliou kat comme dañ ko jox suñu dund gii te it maanaam am ci am ci am ci am ci mbégte lool muy teew ci muy teew ci suñu lépp saa su ne muy lu ñuy bëgg wala lu ñuy xalaat saa yu demee ba jox nu ndigal ñu tàbbi ca toolam yooyee dañoo bëgg a rek ndax liggéey lu waa ji baaxoon dara gën ko kawe waaw kon nag incha allah départ bi ajjuma lay doon le 19 ci euh, le 19 ci ngoon incha allah rabbi fa yéenee jëm lagan nañ ko daan defee maa ngi ñaan képp ku dégg sama kàddu wala nga mos a jàkkaarloog man Serigne Saliou jaar la say mbir ci man koo mën a doon na nga xam ni danaa bég lool ci nga fexe ba ànd ak ñun ca tooli Serigne Saliou ya jëfe ndigalal Serigne Cheikh li gañe ci tawféex ji dellu siwaat yeesal suñ jëmm yi dellu ci jaamu yàlla gi ak maandu ñu ko Serigne Saliou daan diglee ndax yoonu murit kat tuubaa li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati waaw saadiqin lahum bi xidmatin lahum aw bi xubbin lahum aw hadiyaati lahum la tax ku tedd ki ni saadiqin <laughs> loo dëgg wut doo ko jariñoo la tax mooy la ku tedd ki ni bi xidma nit dafay liggéey ngir mën a sàmm ngorom ba kenn du ko yeb la tax mu ni aw bi xubbin loo sopp mu soppi la la tax mu ni aw hadiyaati solidarité mooy dimbilante mooy tax a yegg fa nga jëm mooy ngay génn ci li la yàlla jox di ko jox ñi ko yàlla xañ waaw mooy société bi yoonu murit nga di ci participer moo xam jumaa yi la moo xam université yi la moo xam yi ci aju ngir bokk ci liy dëgëral société bi ñuy wax muridullahi kon nag loolee la sëñ Tuubaa tënk ci baytooyee moo war am murit dégg naa nag am na ñu ñuy jëm a faj waaw maanaam am na am na ay médecins yu bees yoo xam ni dañoo pare pour faj nu ñun ndax dañoo feebar ci bëgg sëñ ak topp ko waaye comme li tax muy xaw a jafe mooy feebar buy wàll la daanaka moo gën a garaaw corona ah, ñoom bu ñu xëyee faj benn personne daanaka 1000 la ñuy wàll chaque jour waaw ah, danañu wàll 1000 ci bëgg Sëñ Tuubaa ak fa yéene koo liggéeyal kon loolee du neex a faj ndax feebar buy wàll la te soo fajee kenn mu wàllu junni waaw ah, kon nag feebar boobee daal yàlla nañ ci dee fu Sëñ Tuubaa ne ëllëg ñu fekk ko fa ci barkeb Sëriñ Saliou na ca suñuy maam nekke woon yow mi jàng nag bul ni ma awalaw kaana abaahum laa yaqiluuna shay'an wala yahtadun déedéet ñooñu duñu mën ay julit ñun ay julit lañu ay murit lañu te ay murit saarax lañu fas yéenee doon asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa